relation Macky Sall ak Amadou Ba nan nga koy liiree neexoo nañu neexoowuñu euh, président dafa dafa bëgg nguuram préservé partem préservé nguur gi mu bës xolam euh, xolam neex na ci Amadou Ba mu ngi koy jàppale jàppale bu wóor lan nga jàpp. li Macky Sall xalaat ci Amadou Ba yëpp boo dégloo Sonko di li muy wax ni exactement c'est ce qui se waaw maanaam li li nekk ci xolu Macky Sall jëm ci jëm ci Amadou Ba lépp Sonko daf ko génne bu yëf mooy dëgg yi quoi bu ñu ba bu ñu bàyyi langue de bois bàyyi wax raxkante beeg yëpp daal maanaam boo bëggee dégg dëgg Sonko li muy wax lépp luy faj meru Macky Sall pour wax ji pour wax ji pour wax ji farankulaayu waaw loolu mooy réalité bi. mais aujourd'hui euh, ak jàpp nga ne euh, Macky Sall libéré na ay nitam libéré na Amadou Ba. waaw boo xoolee kay daanaka ñi ñi doon ñi doon ñi doon xulul Macky Sall yëpp di ko clash la Amadou Ba yëpp yëpp ñëpp def nañ déclaration ñu dem nañ ci Amadou Ba loolu kay ñëpp gis nañ ko ñi gënoon a tàng ay Thérèse Faye ñoom ñëpp def nañ déclaration daal di léegi rejoindre nañ Amadou Ba alors